asalaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrice Leral TV ak Leral point net TNT canal 33 euh, ma leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci seen émission bi nga xam ne moom ngeen taamu moom ngeen bëgg fonk ko di Leral Tar Leral Tar nag di am tous les mercredis à 16h muy émission boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu mode ak boote tendance loolu moo ko tax a jóg dañ lay fekk sa boutique fekk la sa kër wala lépp fépp foo xam ne fa nga nekk rek di yëngu ci wàllu jënd ak jaay ak lu mu mën a doon lu jëm ci wàllu sañse rek dinañ ñëw seet si la jël la wane la client yi ñëw tey nag ñu ñëw fii ngi ci Liberté 6 extension fekk si butiku kër si daal di Serigne Fallou euh, bi nga xam ne Aïssatou moo ko moom madame ay Aïssatou nag nekk fii comme ni ma leen ko waxee woon mais fekk nañ fi la gérante di Kumba euh, Kumba maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam waa Leral maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di dalal sunu boutique bi waa kër si daal di Serigne Fallou maa ngi nuyu ñëpp. alors tey Kumba ñu ñëw seet si leen fii nga xam ne mooy Liberté 6 extension euh, kër si daati Serigne Fallou kër si daati Serigne Fallou nag kenn du wax sañse mode ak boot ak tendance te doo ko ci boole ndax ku ñëw ci boutique bi di fekk tissu tissu de classe di nga fi fekk tissu yoo xam ne fii rek nga ko mën a fekk muy di nga fekk ay yére olof fekk fi ay yére tubaab ba bi ma sol nii si la bokk lii yëpp kër si daati Serigne Fallou ñoo koy jaay ñu ñëw nag fekk fi Kumba euh, la gérante nga xam ne Aïssatou moo ko fi bàyyi mu man loolu li muy def macha allah Aïssatou ñu ngi lay nuyu de passage foofu nga nekk di la wax wax ni la Kumba dalal nañu macha allah euh, Kumba mu bëggoon xam Aysatu liggéey bi moom kañ la ko commencé nan la commencé parce que boo ñëwee ci boutique bi da ngay xam ni lii ki ko taxawal euh, euh, ndaanaan la macha allah mu bëggoon xam Aysatu fan la commencé affaire yi ba egg si fii tey. merci Aysatu moom 2005 la commencé. 2005 bi mu commencé boobu mi ngi def prêt-à-porter la doon jaay ci la commencé di voyager di di dem di ñëw métier bi da lépp li nga xam ne clientèle yi da leen di bégal loo xam ne daf leen di neex moom da koy jaral muy dem partout fu ne lay dem pour indi ay tissus yu baax di leen koy tegal nga xam clientèle yi dañuy kontaan dañuy bég waaw boo déggee li mu wax nga xam ne euh, liggéey bi euh, jékki-jékki wala mel ni ay Aysatu dafa commencé benn benn pour ñi nga xam ne bëgg nañ euh, lu mel nii wala ñu ngi doog a commencé liggéey bi ñu xam ne jékki-jékki am boutique yombul il faut nga nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba tey suñu borom indil la ay xéewal nga mën a am boutique bu mel nii Aysatu tissu rek lay jaay wala dafay ñaw parce que boo duggee da ngay gis prêt à tey yi gis tissu yi nekk à côté Aysatu dafa am ay tailleur yoo xam ne dañ koy ñawal naka lay def. parfois dañuy indi seen tissu ñu ñawal leen am na ñoo xam te dañuy jënd seen tissu yóbbu ñu ñawal ñu yóbbu yóbbu yóbbu ko seen tailleur daal comme saa ñu ñawal leen mais ñun amuñu ci benn kii ku ñëw rek l'essentiel ku ñëw dinañ la bégal boo ñëwee tissu jox la tissu bu gën a pop tissu bu rafet soo bëggee tamit parfois am ñoo xam dañuy ñëw jënd si tenue yi nga xam dafa pare parce que du amatuñu temps pour neen pour dem ci tailleur yi di yóbbu ay tissu di ñawlu ñoom dañuy préféré tout temps ñëw ni ma Coumba lu am foofu ban ko lan moo génn yooyu noonu man léegi ku ñëw daal boo ñëwee di nga fi gis lu rafet te boo ñëwee di nga ko sol. alors kon euh, yéen a ko déggandoo fii ci kër si daat Serigne Fallou yemuñu kese ci jaay tissu cérémonie wala ñuy jaay ay euh, yëre tubaab da ngay ñëw indi sa tissu ñu ñawal la wala nga ñëw choisir tissu bu la la sañsee la dem dañuy jaay lépp prêt à porter pochette dàll sac lépp loo xam ne tissu la bu am classe dañ koy jaay seen ay tissu day jógee partout dans le monde kon euh, Kumba ma bëggoon xam Aysatu fan lay jëlee tissu yi parce que boo duggee si boutique bi da ngay xam ni euh, euh, bari na bokkul te fi Sénégal dañu dañu dañ comme ay jigéen ñoo fi nekk ñoo taamu ma bëggoon xam Kumba tissu boobu mi fan la koy jëlee parce que boo duggee da xam ne fii ay tissu de classe ñoo fi nekk tissu yoo xam ne mën nga ko sol wër ko àdduna bi yëpp te doo gis kenn ko nurooleel fan lay jëlee tissu wam yi. tissu yi moom Inde lay jógee États-Unis euh, Dubaï itali partout dans le monde nday fine ne lay dem rien que rek pour clientèle yi di kontaan parce que day bëgg tissu bu rare boo xam ne day raffiné ba pare du bokk ak beneen tissu boo gis fii boo tàllal doo ko gisaat parce que benn bu nekk ak ak design am voilà kon yéen a ko déggandoo Aïssatou yamul kase ci benn dëkk day wax partout dans le monde pour lekk indi leen ay tissu yoo xam ne yu raar lay doon yamul kese ci jaay fii si Sénégal day jaay partout dans le monde moo xam nga nekk Europe nga nekk États-Unis ak foo mën a nekk si réew mi boo ko woowee envoyé ko sa mesure wax ko tissu bi nga bëgg daf lay ñawal ñu ngi nekk fii ci Liberté 6 extension Kër Sidaat Serigne Fallou seen ay numéro téléphone nekk 77 632 11 31 wala nga def 77 404 41 43 boo ñëwee di nga fi fekk Kumba mu dalal la accueillir la ñawal la loolu rafet nga dem sañse Kumba mu bëggoon xam euh, naka ngeen di gérer cliente yi parce que des nga ñawal nit ba pare ñaw bi di ko neex euh, nga bar ko échanger xew bi ñëw wala cliente boo xam ne nekkul Sénégal war la woo euh, ne la dama bëgg nga ñawal ma war ko ko yónnee envoyé ko ko GP mu war a sañse jafe-jafe yooyu naka ngeen koy dundee fii. waa clientèle bi moom nga ñoom ñoo tax a toog parce que tout le dañuy xool ñoom lu leen neex rek te ku ñëw ku nekk di nga bëgg di nga kontaan te nit di ñëpp noo yam parce que parfois da ngay kenn day ñëw ne la Coumba dama bëgg tissu boo xam ne dama am mariage dama bëgg bu toj toj boo xam dafa boo xam ne bu rouge doon bëri ay perlage affaire yooyu noonu ñeneen ñi dañuy bëgg loo xam day raar du am benn affaire day am design am benn affaire boo xam ne day simple daal nit ku nekk ak ak sa clientèle yi kenn ku nekk sa sa qualité ak tissu bi nga bëgg di ko sol ak bi ngay bëgg tout temps di ko demee ak xew voilà kon ñoo ko déggandoo ak euh, loo mën a bëgg tissu boo mën a bëgg boo ñëwee fi di nga ko fekk am nañ seen page Facebook am nañ page Instagram Kër Sidaati Serigne Fallou boo leen fa demee di ngeen gis tissu bu leen neex euh, bu leen ko taayee ngeen dox seen tànk wala ngeen jël taxi taal seen oto ñëw ba si boutique bi sax loolu dara da koo dàqul parce que boo ñëwee ci boutique bi di nga fekk ay tissu yoo xam ne fii nga ko mën a fekk tissu yu rafet ay tissu marié yoo xam ne euh, ku ko sol sa mariage macha allah doo daanu tissu yu rafet parce que tamit Sénégal fii nii da ngay woote sa xew. Euh, sama classe gi jóge fële rek ñëw daaneel la boo ñëwee kër Aïssatou kër si daal Serigne Fallou nag jënd fi sa tissu la tamit euh, suñu clientèle yëpp extérieur lan rek tout temps dañuy gis benn affaire nu nu nu parce que si Facebook bi dañ koy gis message ma wala nu message Aïssatou ni ko bii laa bëgg lii ak lii dama am mariage dama ko bëgg toj ci comprends léegi dañuy envoyé seen mesure ñu ñëwal leen te dañuy bég dañuy kontaan voilà kon kon kon yéen a yéen a ko déggandoo fii Fatim da nga gis ay nit ñoo xam ne dañuy da nga leen di ñëwal lii mhm. leen neex lii du leen neex mais yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. macha allah loolu mosuñu dal moom ku ñëw ku nekk di nga kontaan di nga bëgg. macha allah du mën a ñàkk sax parce que liggéey ak loolu ñoo ànd euh, kon yéen a ko déggandoo yéen ñi nga xam ne nekkoo leen Sénégal euh, Aïssatou mi ngi leen di gën a woo ngeen gën am confiance di yónnee seen ay tissu mu leen di ñawal wala mu ñawal leen fii ci tissu yi fii ngeen sañsee toj seen xew yi ndax euh, Euh, liggéey bi dafa métti stress bi mënul ñàkk des fois nga dem sa xew sañ see ñëwaat toog jàpp sa bopp yéen ñi nekk Sénégal aussi mën ngeen ñëw fii ci Liberté 6 extension boo ñëwee ba ci terrain bi rek boo wootee ñu jëli la nga ñëw tànn tissu bu la neex nga sañ see euh, macha allah euh, ñu bëggoon xam ay Aïssatou fii ci Sénégal par exemple nit bu toogee këram de leen tissu ngeen war ko livrer da ngeen am livreur nit mën na am sañ see fii nii te du déplacé wu yaakaar na nekk c'est mhm. possible parfois ni ma Kumba euh, dama bëgg benn benn soit laa bëgg wala genre Disney ndax dama am mariage comme par day nekk tey la may o mais daf may envoyé ay mesures ma defal ko ko sur defal ko ko ba mu baax après am nañu livre dama ko koy envoyé te day kontaan. macha allah kon mhm. ñoo ko déggandoo fii nii mën nga ñëw mën nga déplacé wu mën nga toog te loo am nag am tissu yam amuñu kese ay tissu cérémonie am nañ tissu yoo xam ne pour dem wuy ji xew la am yoo xam ne pour euh, génn la. dem tour mariage mariage yëpp ngénte. waaw am nañ mhm. am nañ aussi ay brocart am nañ ay soie mhm. am nañ xeetu tissu boo xalaat rek mi ngi ci kër si taati Serigne Fallou fii loo wër a wër wër boo ñëwee di nga fi fekk lépp lépp kër si daayte Serigne Fallou rek boo fii dugg di kontaan di bég suñu xeeti coton rek uh-huh. amul fenn jëlal ma benn bi nekk sa ginnaaw amul fenn bañ bu giri bi gisuma ko anima ah d' accord bii ni coton la gis ngeen yii yëpp ay coton la ci kër si daayte Serigne Fallou nga ko mën a fekk yii yëpp ay coton la waa gis naa ko ndax eh, boo ñëwee ci boutique bi da nga fiy fekk ay coton tissu xam ne tissu bu nekk nga fiy fekk boo ñëwee ci boutique bi tissu de classe lu nekk nga fiy fekk xodo bi bi tissu bi boo ko solee dem wuy ji xew eh, wala nga woote sa xew sax bii moom <laughs> bii moom ëpp naa sax sol di si xewu jaambur bii moom sol ko sa xew rek tëll xam nga rouge dafa rafet Euh, da dafa am ñoo xam ne seen couleur préférée la euh, lii lépp fii nga koy fekk ci kër si daati Serigne Fallou mi ngi nekk fi ci Liberté extension côté euh, kii bi terrain bi soo ñëwee ba foofu soo wootee dinañ la jël jaay la ba nga kontaan te yemuñu ah, ñoo fii nii boo ñëwee da ngay am am euh, tissu aussi da ngay ñëw fekk fi tissu yu rafet yu am classe euh, tissu yoo xam ne fii rek nga ko mën a amee ci kër si daal di Serigne Fallou Aysatu di di borom boutique bi Kumba nag nekkal ko fi wax dëgg yàlla di def liggéey bi ni mu waree euh, Kumba mu bëggoon xam ay Aysatu naka lay naka ngeen di gérer jaay bi ak internet bi da ngeen am koo xam ne mooy gérer page bi parce que yow yaa nekk fii ci boutique bi. yow yaay gérer boutique bi kii ni gere waale page bi wala Aïssatou moom mooy gérer page parce que am ngeen page Facebook am ngeen page Instagram euh, yéen a ngi nekk si WhatsApp bi aussi euh, ñaari yooyu naka ngeen koy gere ba mën a satisfaire client yi à à 100 pour cent. page bi moom nday moo koy gérer man maa ngi gérer fii nii euh, si boutique bi parfois tamit tout temps moom day day day lancer ay ay ay tissus. si page bi mais nit ki bu ñu demandé parce que sama numéro ci la nekk dan may oo damay ñëw connecté wu xool nit ki lan la bëgg ma ñëw toppatoo ko xool mu choisir après ma livrer ko ko. dafa mel ne sax nay nay mu ngi si boutique bi <laughs> loolu moom gis naa ko ak tamit euh, loo xam ne lu am solo la loo xam ne war nañ ko souligner euh, mu mu intéressé client yëpp ndax vente en ligne dafa am euh, risque yu ci nekk ndax des fois nit dafay partager dara Facebook wala Instagram ne da koy jaay nga commandé ko fay ko sa xaalis wala nga ni bu livre bi ñëwee nga fay ko tissu bi day ñëw wala mu nekk dàll wala mu nekk sac mais day ñëw am différence torop nga gis li photo bi ñu la envoyé bi nga jënd ak li ñu la indi lu benn boo ñëwee fii ci kër si daal Serigne Fall nag boo xoolee seen euh, photo yi nekk seen page euh, kii ni Facebook ak euh, Instagram bi da ngay ñëw fekk fi tissu yooyu teg-teg parce que da ngay xam ne kii nii li muy liggéey daf si am fula ak fayda loolu Aïssatou est-ce que mës na leen dal si seen liggéey bi. non loolu moom mosu na mosu ñu si dal daal c'est très important li nga wax parce que parfois tamit nit vente en ligne bi dañ lay livrer loo xam ne après nit ki dama koy dégg tout le temps mais man loolu moom mosuñu dal ñun personne bi bu choisir tissu bi même tissu lañ ko koy jox te teewul day kontaan parce que ñu li ñuy def ñu ragal ñu ko ñun dañ koo ñeme métier boo ko bëggee rek dañ koy ñeme ba mu jeex tàkk-tàkk te ñun dañoo ñeme suñu bopp. dëgg la macha allah dañ ciy ñeme dañ ciy dem ba mu jeex bu ñu publier lii nit ki bu ko bëggee même tissu lañ ko koy jox comme par exemple nii dañ jox benn tissu. changer ko def si loo xam ne après personne bi du ko neex. Mhm, te nit ki liggéey da ngay liggéey te yàlla moo tax te ba pare teg si tamit da nga ciy xool ci suñu boroom. dëgg la kon kon mi ngi noonu kon mi ngi noonu yéen ko déggandoo képp koo xam ne bañ nga loolu dal la rek ñëwal kër si daati Serigne Fallou fii boo fi ñëwee lépp loo euh, commandé ci seen page yi boo ko commandé dañ la koy livré teg teg du am benn différence loolu boo ko bëggee nag mën na sax changer avis day ñëw voilà day ñëw sax ba egsi voilà da ngay ñëw ba egg si wala ñi nga xam ne dañuy am ay baptême wala ñoo xam ne dañuy dem ay soirée bu ñu nee bëgg xam nga fa am na ay tissu ay tissu soirée. Mhm. tissu yoo xam ne ay. yoo xam ne pour dîner de gala la. très bien mhm. léegi parfois bu ñu ñëwee dañuy gis benn photo ni ko mbaa bii bëgg bii bii mais bu ñu ñëwee dañuy am embarras de choix parce que ah. tout temps dañuy gis lu ko pop. tout temps parce que ñu chaque chaque semaine dañuy am arrivage bu bees. tàkk eh tàkk macha allah waaw macha allah muy lu am solo euh, képp koo xam ne war nga dem soirée dine de gala mariage ngénte lépp lu xew lépp loo bëgg a def rek lu jëm ci wàllu sañse parce que fii Sénégal euh, dëgg neexul xale yi jigéen dañoo mën sañse suñu yaay yi suñu mag yi xale yi képp ko ak noo mën a toll ak noo mën a mel ak prix boo mën a am boo ñëwee fi di nga am sañse euh, Kumba kon ñi ngi jëm ci jeexal émission bi ma bëggoon xam seen vente privée bi nga xam ne moom ngeen waroon def mu waroon am fee ca avenue Bourguiba euh, waroon nekk trois jours di nekk le 11 le 12 ba tey jii nii bokk si di le 13 euh, mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla euh, jamono bi fi mu toll ak Covid bi ngeen dem ba mënatul am. Euh, naka ngeen ko gérer situation parce que nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla neexul euh, te du yow ki yéen kese yaakaar naa matoon ngeen euh, bu ma juumul ay ay cinquante personnes yoo xam ne jóge nañ dëkk ak dëkk ñëw pour def vente privée ñoom ñëpp wax dëgg yàlla muy loo xam ne lu metti la waaye nag mbir moom bu ko yàlla dogalee da nga xam ne yàlla moo ko dogal est-ce que bi ñuy annuler affaire yi fekk na ngeen yóbbu seen ay bagages non est boobu nag fekk ñu woon yóbbu nekk fii boutique lépp la nu tas metti na moom mais dan ko santeel suñu borom Covid moom kenn xamul lu mu doon mais nañ ko santeel suñu borom xëy na yàlla tamit loolu la dogal nañ ko muñ rek mais metti na moom parce que nga investir préparer ñëw ay tenue yu pop yu rafet gis nga yi may naw yii yëpp pour vente bi la woon mais finalement may lool dañ ko mujj annulé kon donc loolu moo gën kon donc nañ ko accepté rek xam naa le reste na di si kanam. dina baax incha allah d' accord incha allah kon euh, ñoo ko déggandoo dina dina baax parce que nekk na loo xam ne lu ñu préparé woon la waroon ko def fee ca ba waaye euh, ak feebar bi am ci dëkk bi mënuñu mënuñu ko def euh, ma may may masaw ñi nga xam ne euh, amoon nañ fa ay marchandises yëpp wax dëgg yàlla bañ ko war ko jaay ñu ngi jëm ci jeexal émission bi ma war a nuyu Aïssatou mi nga xam ne mooy madame Traoré moom nga xam ne moom moom boutique bii di Kër Sidaat Serigne Fallou ma koy nuyu de passage foofu nga nekk ñu ngi lay nuyu bu baax a baax fekk nañ fi Kumba wax dëgg yàlla dalal nañu waxtaan nañ ak moom boutique bi li fi nekk yëpp am solo tissu yëre tubaab yëre olof lépp lépp lépp am na solo macha allah ma lay nuyu bu baax a baax di la wax gros bisou euh, Kumba ma bàyyi la nga euh, wax sa dernier mot ak lan wax sa yi. Euh, maa ngi nuy ñëpp na di ziar ñëpp di nuyu Aïssatou Matouna Diop maa ngi koy nuyu si barke Serigne Fallou maa ngi koy nuyu moom nga xam ne aw ma fayam lépp moom la maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp fàttewuma kenn. maa ngi jox rendez-vous sama clientèle yëpp ñu ñëw fii nii que si daati Serigne Fall nan ñëw. am nañu arrivage bi bees tàkk tàkk tàkk surtout période décembre bi maa ngi solde en même temps tamit ay tissu ay tenue yoo xam ne tamit tenue pour les jours maa ngi koy solde na ñëpp ñëw nag tissu yaa ngi ni kontaan naa trop nag maa ngi nuyu nëpp ñëpp ñëpp ñëpp nëpp di nuyu sama maman à moi maman Marie maman Marie Dieye di nuyu yaay maa ngi nuyu ñëpp ku may seetaan fàttewuma kenn ñëpp maa ngi leen di nuyu voilà yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon suivre seen émission leeral taa tey nag euh, mercredi bi ñu ñëwoon fii ci kër Sidaati Serigne Fall nekk euh, nag dalal ki nga xam ne mooy Aïssatou madame Traoré mais la gérante lañ fekk di Kumba mu dalal ñu wax dëgg yàlla euh, émission bi nag lépp loolu moo ko tax a jóg lépp lu jëm ci wàllu sañse mode ak body ak tendance lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci seen xeetu sañse bëgg ngeen am ay tissu yu raar wala ay eau yu rafet wala ensemble ak lu mu mën a nekk rek ñëwal fii ci kër Sidaati Serigne Fall seen ay numéro mu ngi 632 11 31 77 632 11 31 wala nga def 77 404 41 43. 77 404 41 43 ñu ngi whatsapp ñu ngi am ay page facebook ak instagram lépp loo leen bëgg ci xeetu tissu rek boo leen contacter di nga am sa tissu yu rafet yu raar nga bëgg a def sa xew wala nga bëgg ji xew lépp loo bëgg rek am na fii ay tissu nga bëgg dem dine de gala ak lépp loo bëgg rek euh, fi lay xewee ci kër Sidaat Serigne Fall nekk ci diversité extension euh, nga ñëw fekk fi Kumba la gérante dina la dalal jaay la ba nga kontaan dañ lay jaay tissu ñawal la en même temps euh, du ñu terminer nag te nuyuwuñu ki nga xam ne mooy Aïssatou di borom boutique bi ñu ngi lay nuyu de passage Aïssatou di la di la remercier bu baax a baax di la wax ni la merci ci accueil bi ak ci dalal bi yëpp kontaan nañu ma leen di jox rendez-vous beneen mercredi incha allah fii ci Leral TV ak Leral point net TNT 433 euh, bu leen fàtte nag euh, abonné ci suñu page yi Facebook ak Instagram lépp loo xam ne def nañ ko ci émission rek di ngeen ko mën a gis foofu ak YouTube aussi